jaxatee saax saaxee di randal di tuumaal di taxal di tëj di toroxal tegale tànk toog buuj paaj pacal foroxal Aliou Sall ak Mansour Faye wuruj waraj ba Mansour tay atte bor fay buur xamul saay na te Macky saay saay la sàcc la ñu tippoo gasa maak timbo mu ne da ko bandum seen baas jeex na jippoo baay baay la gas sara maraat jaam la salte jikkoo doomeram ni timboori yootu troisième mandat réew mu yëngooti korek la ci pet ba dëkk bi tàkk ci pet di suuf di gaan ci mbow sëñ si kenn di wax duñ leen may carax bu li waree wax suñu wax mu jii di tibb di warax këpp yalwaan wi xalak waa réew mi rang yi leen di nekk ci bésu karem ofa ñu feeñ feeñ ci douze ans de règne loo wax mu deñ Macky yaa mën a fen carte politicien yi carte place lum lay gëm loo jaar jaale jaalale keroog lañ fay gëj ñi dee ci tat tat ñu yëg ko gëj bàyyi leen ci biir ay ati at ñu ñàkk ñëg ñànki àll boni sénégalais toogal xaar yàlla góolu benn mégoog sëm ñuy tax sa rëm ngay perte sa temps ci werante silibu mbaacoo wala joowu ñaaxarañ doon acte de la semaine yee meen fii comme sabar gu tas weccoo beccoo fii comme yee meen sexualité Franchement, yo! Fier, fier, les gars, les gars, sexy, les gars! asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di màggal ñëpp di ndamoo ñëpp titre di leen jox lu leer luy wér te wóor euh, di leen wax encore une fois guys bu leen fàtte une patrie se compose de morts qui la fondent et des vivants qui la continuent àdduna nit boo ci nekkee da ngay nekk nit ku gore mu metti mu naqari da nga war a nekk koo xam ni il faut rendre à César ce qui appartient à César dañuy wax ni la population sénégalaise est un peuple qui oublie son histoire est un peuple qui rend pas honneur à ses soldats à ses combattants et euh, la force de la nature dafa wone loolu noonu ci màndarga yu bari dañuy wax naan c'est un peuple boo xam ni ventre plein la ñu fàtte démb ak bërki démb du ñu rendre hommage ay doomu aadama yoo xam ne dañoo rey seen bopp ba ñoom tey ñu toog fii ku fàttaliku tey di nga fàttaliku tey la quatre révolte ci la amoon indignation ñu rey plus de quatorze personnes quatorze doomu sénégalais quatorze doomu jàmbur quatorze doomu aadama donc quatorze bakkan yu rot benn bakkan rek dafa foor waxuma laa quatorze ñu rey leen ci Mali foro ci ay jaaxaan ci ay question politique question d'injustice tey jii boo xoolee Sénégal tu trouves pas quelque chose qui montre que am na daaw ci heure bii quatorze doomu aadama yu ñu rey donc c'est entre le trois et le quatre tey jii fan la leer ci sénégalais yi que am na quatorze doomu aadama yu ñu rey est-ce que tey démb ak tey benn pour les quatorze morts kan la donc c'est ça que je vous dis c'est un peuple qui rend pas hommage aux c'est un peuple qui oublie son histoire c'est un peuple boo xam ni booy rey sa bopp sax c'est tu te sacrifies tu deviens benn sacrifice et c'est un peuple qui oublie vite je pense que entre hier et aujourd'hui il devait y des marches de protestation d'indignation pour woo justice pour mu def justice mu dawal justice que ñi ñi rayoon ñu wax ci ñoom loolu bu doon tey jii dans des peuples yoo xam ni am nañ histoire bien dañuy fàttaliku di remember histoire tey jii dinañ génn ci mbedd yi wane ni am na quatorze doomu aadama yi rey ba suñu jot na un an ñi ngi ci suuf maanaam jeex nañ takk ci suuf ku sa ku gasoon tey jii ay yax nga fay fekk peuple boo xam ni ba léegi kenn ci ñoom génn réclamer dajaloowun ñii ñaar ni ñett pour réclamer que justice soit faite pour nos quatorze morts donc encore une fois c'est triste et désolant may wax képp koy xeex xeex rek te yàlla tax bul xool sénégalais sénégalais jarul xeexal méritéwul xeexal kooku je le jarul xeexal méritéwul xeexal booy xeex xeexal te yàlla rek tax bu ci yàlla taxul bàyyil parce que kenn jaru ko ci ñoom parce que c'est un peuple qui oublie très vite c'est un peuple bu gaaw suul doomu aadama deux ans déjà n'est-ce pas ñu ngi si deux mille vingt trois deux mille vingt un mars deux mille vingt un ñuy rey leen ba léegi katu nit donc famille yi nga xam famille victime yi amul beneen famille bu taxaw génn taxaw réclamer justice que justice soit faite loolu bu doon dëkk yeneen yi nga xam ni yàlla may na leen conscience intellectuelle wala conscience patriotique heure bi ñu ngi génn di révolté wu wala di réclamer justice yor ay pancarte di réclamer justice aux quatorze morts bu ñëwoon ne woon dañuy ubbi benn enquête Macky Sall ci début ba nalawal leen enquête amul jàpp ñu kenn c'est triste et désolant quand même li dal muus bi màttoon Mamadou Diop moo màtt quatorze yi Ablaye Wade quatorze morts au moins am na sax ñu jàpp jot a jàpp juré film ak ñun libéré leen mais muus bu mattoon ñoom euh, Mamadou Diop muus boobu moo matt quatorze morts yi devant dix-sept millions de sénégalais kenn ci ñoom génnut marche réclamer justice moo tax ma ne la booy xeex xeexal te yàlla tax Sénégal la c'est euh, il mérite rien du tout c'est des gens qui méritent rien du tout absolument rien lu ñu mérité mooy li ñu leen di teg nii naqar gi leen suñu autorités yi di teg metti gi leen autorité yi di teg te duñ bouger mètre loolu lañ mérité loolu moo tax ñuy subir ay conséquences famille ñi ngi jooy ñi ngi saraxe ñi ngi génne laax ñi ngi wàcce kaamil et le peuple sénégalais dans tout ça aux oubliettes jël nañ ñooñu suul fàtte nañ leen mais garaawul comme chaque jour garaawul la tey ñoom ñi ngi ci Adji Sarr ñu ne marché bi Adji Sarr lañ ko tuddee d'accord mais yàlla moom gëmmut na lawul képp kuy xeex te suñu borom rek tax suñu borom dina la taxaw man maa la wax loolu képp kuy xeex ngir suñu borom rek tax yàlla dina la taxaw bu la ñépp beddi woon yàlla jàpp la nga yaay am ndam ci kaw ña la beddi woon waaye bés boo nekkee ci loolu nekkul nit yi topp la yàlla beddi la bés dina mës ñëw yàlla wan la ni ñii duñu dara man la kon looy def xool ci yàlla ragal ci yàlla calculer ci suñu borom subhanahu wa taala te ndam danga koy am bu yàlla rek nga àndal man loolu laa gëm te alhamdulilahi rabbi alamin donc di leen wax ne encore sonk ku ko sonk sànk loolu man maa ko moom ah. sama droit d'auteur la man maa moom fii la génne maa ko xalaat maa ko bind chanson la donc c'est ce qui l'utilise alhamdulilah tout le Sénégal l'utilise ma m'appartient alhamdulilah au-delà de d'information ñi ngi def loo xam ne tout le monde l'utilise tout le monde l'utilise kooku c'est intéressant mooy li ma leen il faut marquer votre histoire essayez de marquer votre histoire c'est ce que j'ai eu à faire et personne c'est indéniable kenn mënu ko effacer j'ai marqué mon histoire devant 17 millions de Sénégalais j'ai marqué mon histoire j'ai dit j'ai rappé j'ai chanté j'ai créé des slogans et tout le monde l'utilise tout le monde alhamdulillahi rabbil alamin mooy lu ma wax démb sama jarbaat bu ndaw bi bu ma kaw Kaolack di waxtaan droit d'auteur moom man maa ko Sonko ku ko song sànq ñëpp a koy utiliser man maa ko moom man mii waa ji tuuti ji ju ndaw ji mooy li ma waxoon rek <laughs> en 2012 en mille 2010 en 2010 quand j'ai créé l'idéologie Y'en a marre en 2010 à ñaari tali ci buntu fu ñuy jëndee. Euh, booy defar passeport fu ngay fu ngay jëndee euh, timbre à ñaari tali ci rond point Jet d'eau quand j'ai eu l'idée de créer l'idéologie Y'en a marre en loolu moo xalaat boobu ma xalaatoon moo révolté wu en 2011 ñu créé ko en 2010 2011 2012 ñu jëlee fi Macky sal mooy benn bopp bi borom bopp bi moo nekkoon foofu de jëppal ah jëppal fu ñuy jëndee. kii quittance pour booy defar passeport je l'avais créé là-bas l'idéologie foofu la ma ko yàlla indilee yaanaa maar ma wax ko kilifa wax ko caat yàlla def loolu mag waxoon ca 2010 2009 2010 moo régné en 2012 jële fa président mu def lu doy waar mu ñëwaat encore en deux mille vingt et un deux mille vingt deux créé encore li nga xam l'histoire de Ousmane Sonko de bout en bout de fond en indiwaat slogan Sonko ku ko songu sanku maa ngi nii et en deux mille vingt quatre ça va répercuter encore def effet bu doy waar ñu ne waa ji moo fi indi woon tout l'histoire de Ousmane Sonko Adji Sarr moo indi woon slogan bi moom la adduna bi yëpp doon chanter. moo defaat lii donc l'histoire se répète chaque jour à travers benn spécimen boo xam ni moom si révolution rek lay génn yëngal taxawee ne di leen xool donc Sonko ku ko songu sanku maa moom fii la génne bopp bi ok voilà ku koy utiliser jàppale ni sama droit d'auteur la dégg na bon bu weesoo loolu may waxaat encore euh, ñu méfier ci le silence bavard de Macky le silence bavard de Macky lépp nag Macky Sall mi ngi waajal defar pour teste troisième mandat de source sûre et claire Macky Sall daf fi bëgg a toogaat. troisième mandat lay waajal waaw bu wër sax buy dox ci ay tànk ba mu laajtee xam ñoom dañoo gëm ak na ko bàyyi ñi yaakaar dañ ne ko na bàyyi Ousmane Sonko na ci raxas loxoom li leen Macky Sall tontu mooy ñu ne ko boo ko bàyyiwul doo ko fekke lu mu leen tontu mooy buy dem day yóbbaale Ousmane Sonko loolu la leen wax daf ne ne moom buy dem dañ ne ko boo ko bàyyiwul doo ko fekk mu ne moom buy dem da ko yóbbaale loolu la leen tontu ne bu dee dem la man dama ko yóbbaale c'est-à-dire même bu ma ko dul fekkee moom du ko fekke moom loolu la leen tontu te dafa préparé wu pour teg fii pour toogaat fii mais bàyyi leen xel tamit ne Karim Wade da ñëw bàyyi leen xel tamit géopolitique bii moo gën a rëbëjoo lu lu lu mu sa am ci àdduna bii nii di am nii bàyyi leen xel ni Karim waat da ñëw bàyyi ji ñibbisi na depuis semaine bële en urgence en urgence parce que bu matu sax un mois bu mu dem bu mu demee matul un mois mu daw ñëwaat bàyyi leen xel ni Karim Wade ngi ñëw baa ji ñëw na et demandez-vous lan moo tax euh, Abdoulaye Wade boobu ba léegi yeyul musul yëy yàbbi ci la situation politique du Sénégal Abdoulaye Wade en tant que politicien ñëw di ñëw dakaar di dem di ñëw toog ba léegi musul yëy yàbbi ci la situation politique du Sénégal vous verrez Karim Wade vous verrez Khalifa Sall Khalifa Sall est en train de récupérer tous les euh, euh, euh, lu mu tudd waa PS mi ngi récupérer ñëpp dafa dajale ñëpp fu nekk ni mi ngi leen mi ngi dox dox wër di dajalewaat socialiste yëpp depuis Senghor ba léegi mi ngi leen di dajalewaat donc moom dafa assurance ne dañ ko wax ni ko ci ñoom mag yi dañ ko wax ni ko dina dem moom moo tax mu nekk di dajalewaat partisans yi nga xam ni ñoo nekk PS yëpp ñoo newoon PS mi ngi nekk mi ngi leen di dajalewaat ak euh, ñoom Barthélemy Diaz et tout ñu ngi leen di dajalawaat petit à petit. donc Karim Wade bientôt va revenir au Sénégal avec son desk bu dëgër avec Abdoulaye Wade récupéré waa euh, PDS yëpp ñoom tamit ñu dem campagne. y aura aussi Idrissa Seck Idrissa Seck avec l'acceptation de Abdoulaye euh, de Macky Sall Idrissa Seck tam dina dem ci élection donc élection yi vous verrez Idrissa Seck euh, Macky Sall idris Sall Idrissa Seck Macky Sall Karim Wade Khalifa Sall ci ñi wóor ñoom ñoom lu ñuy pare Euh, seen waa ji journaliste boobu lu mu tudd sax j'ai son nom journaliste boobu moom tam mi ngi ci mi ngi ci kii bi ni ñu ni ñu bëgg bàyyi ñu jàll euh, seen journaliste boobu naan dañ na man maay dernier partant bi xaw moom lañ dañ ko wax ne moom mooy dernier partant j'ai oublié son noonu la te nekk député kooku tamit moom mi ngi ci programme bi ci ñu nar a dem ci élection yi donc ñi ma gis daal kañ ne ñoom dañ koy pexeel ba du dem Ousmane Sonko la moom daal moom moom ca liste ba bokk fa non pas Mamadou Ibra Kane yaa yaa euh, Pape Djibril Fall waaw Mamadou Ibra Kane bon gis moom Pape Djibril Fall Pape Djibril Fall turam mi ngi teg dañ ñu dem ci présidentielle yi gis naa ci Pape Djibril Fall gis naa fa Karim Wade gis naa fa Idrissa Seck gis naa fa Macky gis naa fa Khalifa Sall ñii daal xam naa ne ñoom gis naa leen fa ci ñi nga xam ni ci élection présidentielle yi dañuy waaj a dem donc moo tax Macky dafa bëgg a toogaat mais daf ko bëgg ubbi nga gën a yaatal mbir yi euh, di leen xamal aussi loolu moo waral le silence bavard de Macky Sall et le silence bavard de Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade yëyul ci question politique sénégalaise bi musi cee yëy yàb bi daf ne tekk noppi way ñoom Malick Gakou dinañ dinañ demee pas ci peut-être dañ leen di kale ci affaire euh, parrainage peut-être ay Mamadou Ibra Kane euh, mouvement lañ yor ñooñu gëm naa ci affaire parrainage lañ leen bëgg a kale mais xam naa daal Pape Djibril faal moom moom moom ma nga ca bon voilà xamal aussi ngeen bàyyi xel ci affaire yu bari Sénégal Sénégal dañuy xam ay dëgg yu bari mais duñ ko ñemee wax Sénégal mooy dëkk bu compliqué bu doywaar boo xam ni doomu aadama yi dañoo ragal doomu aadama yi amuñu fitu wax loolu mooy le plus grand problème du Sénégal ay nit yi nit yi lañ gën a ragal ka yàlla nit yi nit yi lañ gën a ragal ka yàlla man loolu mooy sama problème man problème boobu laa amul man yàlla laa ragal ragalu ma nit. loolu mooy sama problème ak sénégalais yi dama ragal yàlla mais ragalu ma nit.